sant yàlla rek julli ci Yonent bi sant sama ñaari waajur comme dab di sant gaay rek xam nga waaw làmb moom dafa doy waar te boo jugee Sénégal gépp jug day xam li nga bëgg xam li nga bañ te mbooloo bu toppoo sa ginnaaw yaa xam li ngay liggéey yaa xam li ngay defee ba téego xam nga di sant waa Thiès yëpp di sant ëxlu Baye Fall yi di gërëm gaay yëpp xam nga di sant Coleman Fitness Club xam nga ku ci mel ni Mouride jiite ko ak sunu grand Modou Mbaye Modou Mbaye xam nga di sant gars yi xam nga murit moom waaw coach bi mooy loolu noonu waa Serigne Bamba. ma fekk moom di nga liggéey du sama cooba du sama yëf sama coach laa fekk muy murit nga xam bépp moo amee combat ci moom laa koy entraîné ba def li gën moom moo may jox sa affaire rek man moom xawma dara. ci ginnaawam laa topp li ma wax laay def li ma moom laay bàyyi. waaw 150 kilos yi moom tànk yi la rek yooyu laa ko dóoree quoi te xam yi murit moo ma ko forcé mais mënu ma ko sax. non gi moom mooy loolu noonu murit daal murit moo yor affaire yi barke yàlla. moom mooy def loo may def mooy bàyyi loo lépp moom la nag bu baaxee moom la. waaw mais combat bu ma ñëw ne combat bu ñëw lii la may def loo bak Serigne Touba. est-ce que sa moo xam moom la concerné mais man li nga xam ne moom la mu murid di jàngal moom laay def quoi. te xam nga salle bi depuis samay combat bu ma mënti am fi laa koy préparé. kon donc li tax ma ñëw indi fii télé bi fi ngay fi ngay fi ngay defee chaque jour muy neex. ba mu dul dara amoo dara fii nga daan defee kon soo amee dara fii nga wóor mën a indi xam nga di wax sama mbokki mbëri fi mooy sama ruq fi laay entraîné fi laay làqatoo menu mbër maa fi am combat di nga entraîné ba mu jeex tàgg te du ma fay benn dërëm waaw murit maa ngi koy lancé rek di wax suñu grand Mbour Mbaye mu gën a yokk affaire yi ndax murit moom teg na affaire yi ci axe xam nga bilaay walaay taalaay affaire moom lépp macha allah neex na trop ak bii bi xam nga bii bi moom nekk ci affaire yi xam nga di si jàpp bu baax. waaw sama adversaire di ko wax bay boo daj lu mit rek parce que man gone laa te dañ maa yaakamti dañ maa yónni yaakamti ma am lu nekk sama kanam te dama kaa war a jël ji barke Serigne Touba ah di ko wax waa Thiès gépp égri Thiès mbooloo gépp dara nan ma ànd man waa Thiès gépp ànd nañu ak man dama ragal barke Serigne Bamba dama ragal man sama lépp fitness club non mais man xam nga nii laa baaxoo man sama lamb sa woo gars yi jàpp ci combat bi ndax ñoom lañ ni Coleman fii damay jàpp sama ko bagage bu baax a baax sama doole fi laa koy liggéey man déwuma États-Unis déwuma fenn fii laay entraîné. bak Serigne Touba sama États-Unis ngi nii. waaw moom am na bu baax. am na yoo xam ne sax génnul. am na yoo xam ne sax génnul. barke yàlla ku ci mel ni xam mooy loolu noonu. am na yu bagage yoo xam ne moo koy defal mais génnewu ko murid yi xam nga am na exercice yoo xam ne génnewu ko non instant noonu nëbbuñu xam nga gars yi dañ koy te bëgguñu ñu gis moo am na lu garaaw la fi nekk am na lu garaaw lu nekk ci biir loo xam ne ay mbër la yoo xam ne xoolal secret la billaahi non lii daa am ku ma koy jàngal nag maître Alsane xam nga école de kii lamp fall box bi nekk terrain mars ngelaw fa la ñuy entraîner sa jour xam nga maître alsan nekkoon Côte d'Ivoire jóge fa ñëw nekk sama grand bu baax di ma jàngal xeex moo tax ma dem ba jàng sama yaram tàng ma lancé ay coup waaw xam rek lépp lan ma man duma mbeur mu ndaw jamono ji quoi te li topp sama ginaaw dafa bari non man lamb ji lépp lay def am na nooy damay xeex Ya, damay xex arbitre bu ne prit ban hmm. su ba ba gi ñep génn ban jàkkaarloo man sama adversaire su ma doxee ursi ko man duma ma réeral loolu yalla def na ko ci man bu arbitre ne prit damay dox attaqué ko té yalla xam nañu xol duma arrière no ñaabi man déggoo li ma wax kéro tay wax na la ko tay marché né la man carrément ci bobu man damay nelaw sax di jang bëre kon yaakaar naa bëri dafa damm ci man baag Serigne Bamba kon donc am na yoo xamante ne tamit mooy loolu noonu waaw maa waaj seen na nekk sax sax sax man li ma liggéey xool moom laa gëm man ak moom man booy bokkuñu yoon daa lu nu boole rek barke Serigne Bamba te damay taaxali ko moom léegi ca la ma jëm ñëpp xam nañ ko barke Serigne Bamba non xaalis boole man ak moom xaalis sañu boole mais du la am déedéet ah, déggoo li ma la wax ñaame dama ne man ak booy bi moo ñu boole mais du bak Serigne Touba. waaw sama adresse maa ngi koy jox ni ko le 22 janvier incha allah xam nga mu préparé comme dab am nooy gone la mi ngi ci yoon waa Sénégal gépp ànd nañu moom te am na loo xam dañ ko personne te dañoo ñaan yàlla dabi ji ko quoi benn instant mooy loolu noonu. waaw naka la liggéey lu mu liggéey na ko xeeb ndax gars yi ñu may déglu midi ku ci mel ni sama grand mu xam nga seetaanu ma maam saa seetaanu ma. xam nga docteur Ndiaye dentiste moom it xam nga saa bi moo koy abonné ñuy entraîné chaque jour kon donc tamit moom it beneen saa affaire bi waroon na ko fee fekk sax mais xam nga rek yàlla quoi di ko wax mu jàpp ci combat bu baax ak soxnaam day noo koy mbaay soxla ci benn yoon xam nga di wax gars yi murit waa salle yëpp ñu jàpp ci parce que lu ma am fii laa ko indi kon donc tamit suma mission war a taxaw beneen saa. waaw fan si club comme dab rek waa jaxa waa jaxaaw gi xam ne fa la sama adversaire dëgg am naa fay supporter Ersan Kawsara Medina Fall Kër Maïlage Kër Cheikh Ngent Jaxaw Taaxi Kaw xam nga fépp di woo waa Bambey Ngoy Aline Sila di woo waa Touba waa Nasru amuma seen fay xam di woo waa Daaru Rahman xam nga di woo waa Daaru Xafoor xam di woo waa Ngoy Aline Sila waa Moxodan xam woo sama mbokki séeréer yi xam nga maxey xoyaa den fop ciyami er, roog ciyamin victoire le um jàpp Pape Ndaw Mafrine jël bu amul benn werante yàlla na ma ko suñu borom defal ci bàkk Serigne Touba maa ngi woo mbokk sama mbokk séeréer yëpp nag ngoy Alioune Sylla maa leen maa leen woo bàyyiwuma kenn sama mag sama xarit sama roi des arènes Modou maa ngay woo jàpp ci combat bi combat bi combat la moom ak benn grand Serigne Ndiaye maa ngay woo bu baax mu jàpp ci combat bi di woo sama yaay ak sama bi nag sama combat yaay la sama yaay laa koy bëreel ndax tey bi avance bi duggee am na loo xam ne yëkkati na ko baatale ko ci man maa ngi ñaan loolu mu wax mu jugee ci gémmiñam yàlla na ko Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall bi Serif Assane ko yàlla def maam jël bu rëy ci barke Cheikhul Khadim di wax waa Thiès waa Thiès TV Thiès Merveille TV Thiès amu ma seen fay ñambe comme ni ma ka daan waxee rek dara budul dara dama daan dox ci mbedd yi nga may photo may ñëw du ma fay benn dërëm kon donc yàlla bu defee lii tey ji nga am bi dan la ci ñaanal bu baax li nga bëgg yaa ko ci xam yàlla ko Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall ful def ko ay télé yu mag a mag di la wax kontaan naa ci yow bu baax a a a baax rendez-vous nag le 22 incha ah, li mu moo ko xam yàlla ko Serigne bi def xam nga nekk paa bu ci affaire yi moom it xam nga mooy loolu noonu bàyyiwun benn yoon di sant gars yëpp rek kontaan naa bu baax a baax a baax a mi nga xam ne moo fi nekk tamit jàppale ma ci affaire yi maa koy sant bu baax di sant gars yëpp bëggee rek bëggee rek bëggee rendez-vous le 22 incha allah rabi